mu ngoog jërë ngeen jëf mbokk internet yi nettali info beneen yoon ñëwaat ngir woyal xibaar yi nga xam ne nag doon nañ leen ko baaxee nañ leen ko waxee woon ci vidéo bi passé noonu nañ leen dinañu ñëwaat ci li nga xam ne moo di mbirum kile di Lionel Messi mi nga xam ne nag ñëpp leer na ne fi mu toll dina jógee fële ca Paris Saint-Germain ñu doon xaar nag doon xaar retour retouram fële ca FC Barcelone jàpp leen ne du ñu demee ndax ki nga xam ne nag moo di Lionel Messi saison bi ñu dëgmal bu ci yàlla àndee mu ngi war a jouer fële ñu naan MLS donc Messi ca Inter Miami lay footballé saison bi nga xam ne nii moom la ñu dëgmal jàppale na ne c'est maintenant parti ni ñu koy waxee c'est officiel Lionel Messi euh, pour Inter Miami donc information bi ni mel nag moom la ñu daal di jot la décision jàppale ne elle été prise jël nañ ko te file ki heure amaana. ki nga xam ne moo di Lionel Messi ci boppam dina génn euh, annoncé ko boppam donc moom Messi euh, nag saison bi ñu dëgmal mu ngi ko war a def fële nga xam ne moo di MLS donc di jouer pour club bi nga xam ne moo di FC Inter Miami donc nag ki nga xam ne moo di FC Barcelone malheureusement pour ñoom. donc malgré effort yi nga xam ne yëpp def nañ ko ngir kii nga xam ne moo di Lionel Messi mën a dellu si foofu ci euh, seen club ñoom nag finalement duñ ci mujj am gain de cause ndax kenn di Lionel Messi nag décision bu mu jël rek mooy dem. Euh, football yi fële nga xamante ni moo di ca Inter Miami donc c'est officiel aussi ki nga xam ne nag moo di Moussa dembale euh, dafay daal di jógee foofu nga xam ne moo di ca Olympique Lyonnais en tant que agent libre donc loolu xibaar aussi bu ñu mën a confirmer moom nag il est prêt pour mu am beneen chapitre ci été bi nga xam ne moom la ñu dëgmal eh, ngir nag signé ci beneen club mën fa eh, eh, amalaat beneen aventure Borussia Dortmund nag mu ngay wéyal waxtaan ci mbirum ki nga xam ne moo di Edson Alvarez donc négociation yi mu ngay continuer ci semaine bi leen jotees nañ lu bees am ci seen diggante ak ki nga xamante ni moo di Ajax Amsterdam donc waxtaan mu ngay wéy Eh, jamono bi nga xam ne nag eh, ki nga xam ne mooy bi eh, bit Bellingham nag moom nga xam moo di Bellingham mbir ma terminé na ba mu war a dem fële ca Real de Madrid jamono bi nag ki nga xam ne moo di Dortmund ci wet ga kam yi waxtaan rek mooy Edson ki nga xam ne Edson Alvarez ngir nag jeexal waxtaan wa digganteem ak ki nga xam ne moo di Ajax Amsterdam ngir nag fexe trouver benn accord ngir jël go nga xam ne moo di Edson indi ko foofu ca Dortmund Hussein Aouar nag moom tamit jàpp leen ne lu ñu confirmé la dafay daal di jugee euh, fële nga xamante ni moo di ca Olympique Lyonnais en tant que agent euh, libre moom nag doomu Maroc bi la nga xamante ni moo di Aouar euh, Aouar nag nekk jur bu ñu ràmmeek ràññeeku lool ci saison bi nga xam ne moom la ñu dëgmal jërë ngeen jëf mbokk yi mu nekkoon xibaar yi ñu andil